ak El Hadj Ousseynou Ndiaye tax leen ak jàmm ci xibaar yéene kaay kay moom moo di Njaareem ak Ndar Géej diwaanu Touba yéene kaay kay nam fay doxee doy yéene kay loolee ñu xamal ne jaaxle kay ma nga tàmbalee ci njiitu réew mi ak nii nga xam ne rek noonu la

xamal ne ñoom koy jàngoor ji ni nga xam ne rek noonu lay doxee réewum Sénégal ak foofe wuute na lool tey nag mesures fii la gën a tengee fii la gën a taree vox populi yéene kaay diñu xamal ne weeru ba kay moo fa jaar réewum Sénégal ñi nga xam ne rek jot jot nañoo ñàkk seen bakkan mbir ya ma ngay gën a doy waar ju nekk fanweer ak ñaar juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak benn boobaak léegi ci ay cas communautaire yéen kaay gi duñu xamal ne weeru janvier bi kay génn na àdduna avocat bu mag yéen kaay yu bëri xëy ko fësal ci seen xët yu njëkk l'évidence yéen kaay diñu xamal ne ak lu mel xew daal jamono ji AVC covid 19 accident yi doy na war lool ci réewum Sénégal lépp loo xam ne rek jëm na ci couvre Aminata Lo Dieng fanaan na guddeem gu njëkk ca kaso ba yéenekaay gi duñu xam ne salfaañi dogalu couvre-feu bi ak jëfandikoo loo moomul wala wuyoo loo doon ak itam xuppab agent bu nekk ci liggéeyam yéenekaay gi duñu xam ne suba ci àllarba ji lañu koy àtte fekk jamono jojee source ay yéenekaay duñu xamal ne maître Bokar Thiam xam ne ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di adjoint conseil municipal bu maire ba jamono ji kay ñoo koy vilipande ndax conflit d'intérêt agent judiciaire de l'État bi mu doon lay taxawee yéenekaay gi duñu xamal ne moo taxit ko ci kanamu jiitu réew mi Macky Sall réew mi quotidien yéenekaay ne ki moom moo di Moussa Sy ak ñi nga xam ne noonu la joxee bopp APR ñu daanee la ko l'observateur yéene kaay gi duñu xamal ne mbir mu doy waar benn xale bu jigéen bi nga xam ne rek al juróomi nit yoo xam ne jotoon nañu ko teg loxo kenn ko sax doomu réewum Congo la yéene kaay gi duñu xamal ne moom kay jaayloon nañu ko drogue violé nañ ko yóbbu ko ci wetu mbuur am ak moom lu toll ci ñaar fan ak benn yéene gi duñu xamal ne jamono ji nag yoon teg na la ba suba